Yaatal Vision la chaîne de l'actualité. dellu ni jàmboo ki internet Yaatal Vision bi leen nuyoo lu ñeel nag màggal ak Daaru Muxti édition 2023 bi dëppoo woon nekk le 8 mars bi ñu génn loolee nag xew ba jeexantal ci jàmm waaye nag la ca yéeme mooy benn oto boo xamante ne nit ñoo ci ca duggoon dañoo jóge woon Touba ñëw ca màggaluk Daaru Muxti ga ñoo def soog ca yoonu Touba diggante Daaru Muxti Touba loolee nag ba mu amee oto boobee ñuy woowee Mbàkke Touba moo daldi di këpp bi mu këppee nag ñaar ci ay nit daat nañ ca ñàkk seen bakkan loole nag ba mu amee ña ca war a teew ni ki sapeur ak police ak gendarmerie ñoom ñëpp nag xëy na teew nañ ca bis boobu teew nañ ca béréb boobu la nga xam ne fala la jëye jooju amee di ñaar ñoo xamante ne bii ca sens yi sens rek lanu daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw bi nga xamante ne bii nag jóge nañ Daaru Muxti doon dem ci dëkk bu sell boobee di Touba ginnaaw bi nga xamee ne màggal nañ ba pare. yaatal Vision la chaîne de l'actualité. Yatal Vision la chaîne de l'actualité. Vision la chaîne de l'actualité. Yatal Vision la chaîne de l'actualité Yatal Vision la chaîne de l'actualité